ànd ak Mama Dieye dimanche bu nekk si GRTS si juróom-ñaari waxtu yee genn wàll si ngoon ba si juróom-ñetti waxtu yi jamono ji programme bu xew te ànd ak jamono. وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا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 keroog nga xam ne dafa amoon ku sàkku ci ñun pour ñu waxal ko waru gari góor ak waru garu jigéen limoon nañ waru garu jigéen yépp nga xam ne moom la war a defal jëkkëram boobu lañ jëkkee woon waaye ba ca toppoon mooy ne waru garu jabar jëkkër nag ki ay jabaram itam boobu demaloo nañ leen ci ba ci juróom-ñaari tomba juróom-ñaareelu tomba ba waaye xanaa ñu commencé tar la rek ci fa mu commencé woon pour euh, mu gën a euh, dëgër waaye ñu ngi lañ jëkkoon a wax ne an yu aamilaha daa iman bil ihtiram wal ikram ne boobu liñ fa waxoon mooy ne ne jëflanteeg ja jabaram ci bër bu set mu mel ni séet bu bees la am mu di ko teral di ko defal lu nekk di ko respect itam ci waxam xanaa ñu gaaw gaawantal ko noonu rek léegi jaar fa noonu ne ñaareel ba mooy ne antakoona alaqa baynahuma mutlaqan wa abadan mabniya alal mawaddati wa rahma ca mooy ne seen diggante ne nekk diggante boo xam ne da ngeen koy def ngir yàlla ne sëy bii ngir yàlla la yàlla moo la sant li nga xam ne moom nga fa war a def waaye moom itam lim la war a defal yàlla moo ko ko sant kon nag sëy fi nga xam ne fi la uutee sax ak yeneen yi moom li nga xam ne moom lañ la santa soo ko defee da ngay am sëy bu neex parce que da nga njëkk am ngërmande yàlla dafa naka dafa def santaaneem waaye soo ko bàyyee da ngay am sëy bu naqari parce que lay tax mooy da nga bàyyi santaane yàlla bàyyi itam sa waru gar yi nga xam ne moo nga war a defal sa jëkkër ak diggante moo xew ci diggante jëkkër ak jabar bi ñu waxoon ne ba ca topp nag man an mën a ta ta saawur maaha wa taraadi xusuusan fi kulli ma yataallax bil beyti wal awlaad ñu ne woon boobu mooy ne nay déggoog moom di diisoog moom di dëppook moom ci wax ba pare itam ca sa jabar maanaam na nga déggoog moom di dëppoog moom jox ko teraanga ba nga xam ne lu mu wax itam danga koy consider jàpp ko noonu mu ne nag rawatina nag ki loo xam ne dafa aju ci néeg bi ak loo xam ne dafa aju ci euh, xale yi beneen ba ci topp ne i'anatuha fi man mansiliya mu ne boobu waxoon nañ ko ca mooy ne léegi na ko dimbale itam ci liggéeyu néeg bi liggéeyu sew yi nga xam ne moo nekk ci biir kër gi mu di ko ci dimbale loo xam ne mun na ko defal boppam mu def ko ca du ko wàññi dara toog bi bugg ndox nga dem ca firij ba jël fa ndox indi gis ne mu ngee def lii mu ngi tamit lii nga defal ko lii yooyu lañ lañ ci jublu woon beneen ba ca topp moom mu àddamu mu daaya xatiha mu ne bu ko lor moo xam ci wax la moo xam ci jëf moo xam ci dëkkuwaay dëkkuwaay bi tam na doon boo xam ne elloo na ak moom boo xam ne léegi euh, dina ko mën a aar aar njabootam ci loo xam ne du nekk benn xat xam ngeen ne xale yi nañ leen ko dénk woon bu ñu amee nangami at yi nga xam ne waxoon nañ leen ko ca mooy bu amee fukki at léegi benn xale warta tëdd ak beneen mu mel ni bu boobaa sax yow jëkkër li ñu la santa mooy kenn ku ci nekk nga wala ku nekk nga xale bu am fukki at rek dafa war a am lali boppam boo xam ne waratut a bokk ak keneen ñoom bu doon ñaari jigéen sax waratuñoo bokk bu dee góor ak jigéen di rawatina ci wala boobu sax maa ngi foog ne ci juróom-ñaari at la la ko waxoon waaye léegi yooyu itam waru gar la yoo xam ne sharia moo la ko sant bon beneen bi ci topp mooy ihsaanu itaamiha mooy na rafetal dundal dundal gi mu koy dundal mooy ñamam nag li rafetal pare itam xam ne lépp loo xam ne lu ci aju la moom la war moo tax fii sharia dafa jëfandikoo baatu ñam ñam nag mooy loo xam ne togg nañ ko ba pare ba taaj loolu ba ba nga xam ne léegi lekk rek moo fa des loolu moo tudda ñam kon nag loolu luñ ko war a toggeeg la ko war a sottal ak yëpp bu fekkee ne ci matt laa këriñ ak ndox maag yëpp dafa mel ni dafa war jëkkër ji itam pour léegi mu dem uti loola mu def ko ca ba nga xam ne léegi lii dina war a pare bon beneen ba ci ba ñaare ba mooy ne an laa yadriba wajhaha mu ne jëkkër warul la dóor jabaram lu dul ci dóor yi nga xam ne sharia indi na ko te door yi nga xam ne sharia indi na ko mooy dóor yoo xam ne du fofal dara du nàccal dara du sax mel ni dara la doon ca yaram ba loola wax na ci façon ngi du bi nga xam ne moom nga koy dóor mu ne léegi jumtukaay bi nga xam ne moom nga jël di ko dóoree na nekk lu mel ni mbaxana na nekk lu mel ni musuwaar na nekk lu mel ni socc bu fekkee bant la ak yi demee noonu xam nga ne yooyu bon mooy la wax la ne rekk léegi kii nii duhul mbaam wala duhul koo xam ne léegi dañu war di ko kurpeñ di ko mbëkk di dóor dóor yoo xam ne dafay deretal sax wala muy tëj ci yaram ak yi demee noonu mu ne nag léegi bi mu nekk nii ñu fii nga xam ne fi lañ toll woon mooy ne an laa yadriba wajhaha mu ne dóor yooyu itam lu mun di doon wala sax ca dóor yi bi ma waxee aala bi nga xam ne moom nga koy dóoree ca mooy jumtuwaay bi nga xam ne moom nga koy dóoree teg na ca itam ne ca boo yëkkatee sa loxo bu sa poqataan feeñ ak lu mu doon yëfi musuwaar ak yëfi mbaxanaak yëfi yu oyof yooyu itam sax waaye boo dem bay yëkkati sa loxo sax mu ne bul yëkkati sa loxo ba sa poqataan feeñ booba nag ci la ñëwee indi na ci bu ko dóor itam foo xam ne dafay nekk ci li ko commencé ci doxa bi li ko commencé ci doxaam ba dem ci kaw boppa bi foofu dafa xaraam mutlaqan pour léegi jëkkër mu dóor fa jabar wala ñu dóor fa jigéen ak ku ko fa mun di dóor rek loolu dafa xaraam bon bu fekkee ne dóor yi ñu la sant yaa ngi dem ba nga xam ne àgg nga ca ci marxale yi nga xam ne ci lañ nga ko war a defee dem ba war a ca àgg nga dóoree ko façon ngi dóor yooya bon dóoree itam place yi nga xam ne moom lañ la santa mooy li ko commencé ci baat bi jëm si suuf ci place yi nga xam ne léegi xëy na sax soo ko fa dóoree dóoree mun naa soppaliku sax yeneen mbir yoo xam ne du nekkati dóor nekk kaf bu boobaa yooyu la ci jublu bon foofu nag foo fi nga xam ne fi lañ emoon bi nga xam ne moo ca toppa ca wax naa la ne fii moom waa ji wala bulam téere bi daf ko def ñaar fukki poyen ak ñaar bu góor ba mu ngi ko defoon fukk ak juróom waaye bii daf ko def ñaar fukki point ak juróom ñaar fukk ak ñaar kon léegi fi nekk nii ñun ñu ngi nekkoon ci juróom-ñaar bi juróom-ñaar bi lii nga xam ne wax naa ko nii waxoon nañ ko bon nag bi nga xam ne mooy juróom-ñetteel bi an laa bi xab bi haha bi sabbi awi chatmi awil hijaa i laa bi saatiha wala bi usuliha mu ne bum ko xas bum ko saaga rawatina nag saaga yi nga xam ne dafay nekk saaga ci ay waajuram bu ko saaga moom ci jëmmam ak ci yaramam cër bu mun di doon bu ko gaaruwaale di gaar gaaral ay yëf yoo xam ne léegi yii nii daf koy indil moom wax beneen boo xam ne mun na caa sosu mu ne loolu bu ko def laa fi saatiha mu ne bu ko def ci jëmmam bi moom wala fi usuliha bu ko def itam ci cosa ci meenam ay kilifaam ñi nga xam ne ñoom ñoo ko meññee wala sax moom ñi nga xam ne moom la meññi bu fekkoon ne ñoo xam ne demoon nañ bi am ay doom ñooñu nga di leen di ayib ayibal wala nga di ko wax loolu pour léegi jublu ci ayibali ndaw si mu ne la loolu dafa xaraam an laa yu xabbiha bi chat mi bu koy gëdd itam nga xam ne da nga koy e, wax wax yoo xam ne léegi dangay ngay indi xuural sa baat bi wala gëdd ko gëddaa nga yoo xam ne léegi lii daf koy tiital wala daf koy ragal mu ne léegi jëkkër warula a noonu jabaram loolu moo doon juróom-ñetteel ba juróom-ñeenteel ba mu ne an laa yax juraha xenda hudoosi su itafahum illa fil madja